alsalatu wassalaamu ala asrafi alxalqi sayidina wa nabiyina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yowmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi yowmul jumaatil mubaarak bis bii nga xam ni sunu borom subhaanahu wa taala moonu digal nu di ko daje ci benn pakk ngir jooxe farata ji mu tekki sunu los te moo di julli ñaari rakka ci tisbaaru ajjuma bu ne yàlla faratal ko ci nun wax ni bu ñëwee na ngeen bàyyi li ngeen def lépp te wuy ji woote boobu bu fekkee ni gëm ngeen yàlla yaa ayuha alladina aamanu isaa nuudiya li salaati min yowmi aljumaati fascaw ila dikrillah wasaru lbeyc yéen ñi gëm saa bu ngeen déggee ay ayya ala salaa fi yowmil jumaa na ngeen bàyyi lépp lu ngeen doon def ak lu loola nekk nekk farata ak lu mu farfar ak lu mu am am njariñ mu tudd ca kenn ñu di ko wax njaay njaay ak jënd mooy li gën a mën a téye nit kookee sax yàlla ne na ngeen bàyyi ko te wuy ji kon noo ngi ndokkeen ñi wuy si ñëpp ñi nga xam ni baatu yàlla boobu bi mu jubee dañ ni ñokkete seen kër ni ko sami'na wa ata'na dégg nañu li nga wax noo ngi ci yoon wi ak seeg jàmm ñoo ngi ciy ndokkeel ñépp muy daje boo xam ni dafay jàngale ak booloo dafay jàngale ak dëggu ndax doomu aadama ji waxoon ni yàlla gëm naa la te mooy li nga digle lépp dinaa ko def li nga tere duma fa jaar kon bi nga ñëwee ci mbooloo mi dëggal nga wax jooju kon juma dafay dëggal kaddu gi nu doon fanaanee wax guddeeg bëccëg te moo di kaddug la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi wa sallam muy dajale jullit yi ñuy xamante di amante di jariñante di jariñante ci sunu xam-xam ak ci sunu doole ak ci sunu alal dajaloo googu mooy jiitu balay looloo am mu dinu moytandikuloo lépp luy xajamal loola jamono ju nekk yàllaa ngi nuy waar ni na ngeen di bàyyi luy xajamal dund gi te xajamal dund gi mooy wuuteeg yàlla ci li mu digle jamono buñ ko defee rek noo ngi yàq sunu àddina noo ngi yàq suuf yonent sallallahu alayhi wa mi yàlla yónni woon ci nun mu ñëw ni damay mottali makaarimul axlaaq bu'istu li utammima makaarimal axlaaq jikko yu tedd yépp bu ñu dajee man fas naa yéenee def yépp ba def na yépp ba mu defee yépp moo tax mu too doon ku ñuy tudde mu tammimul makaarimil axlaax mu tammim makaarimil axlaax amul benn jikko bu tedd booy gis lu dul ni yonantu jëfe na ko amul benn jikko bu safaanu booy dégg lu dul ni yonantu sori na ko ñi ko topp ñépp te gëm ko it foofa la ñu nekk ولذلك لما سئل سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن خلق هذا الرسول المجتبى فأجابت بكلمة واحدة كان خلق القرآن dafa tontu tontu lu gàtt moom soxna Ayisa bëggu bëggut a nekk di détail yonentu daana def lii daana def lii daana def lii déedéet da leen ni rek dellu leen jàng alquran lu ngeen fa gis ci aw tagg yonentoo mel noona lu ngeen fa gis ci ab safaan melul noona kon alquran la doon doon alquran ju doon dox ci kaw suuf kaana quraanan quraanan bi maana al kalima li alquran jóg lépp ak li ko tax a jóg moom la yonentu doonoon sallallahu alayhi wa sallam baax yi ñëw mel noona moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne yàlla daf koo de joxoon jawaamiul kalim mooy baat bu gàtt mu man cee yar àddina baat bu gàtt mu man cee yar àddina lamma jaahu rajulun yatlubu minhu lwasiya fa qaala lahu awsini ya mustafa fa qaala laa taxdab fa qaala awsini fa qaala laa taxdab fa qaala awsini fa qaala laa taxdam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw ni ko dama bëgg nga dénk ma ndénkaane boo xam ni dama koy jariñoo te dootuma soxla leneen mu ni ko bulmer waa ji xeeb lool baatu bul mu laajaat mu ni ko bul mu laajaat mu ni ko bul mer aka gàtt waaye àddina bi yépp lu fi yàqu mer ko yàq ku xeex da ngaa mer ku rey da xeex ku bañ da ngaa mer kon ku fexe ba yonent bi loolu mu ni waa ji bul ko def ku fexe ba doo mer na la wóor ni deesu la àtte ci àddina ku dul mer deesu ko àtte moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dénkaane ni bul mer moo tax gaa yu baax yee daawuñu mer daawuñu mer boo defee luy niru mer dañ la cay gërëm sayiduna ibrahima ibnu adham radiallahu taala anhu ñëw na dugg ci mbooloo mbooloo ngeen xam ni mbooloo ma sa bindoo a jekk euh, meloo wa rafetul xaw naa euh, sagare tax ñay garde dàq ko mu mel ni àgg na ci laal yaramam waaye lu mu tontu ki pes yaramam daf ko ni allahuma ixfir li qawmi afwan allahuma ixfir li aqi haada yàlla yal na nga baal sama mbokk mii ma pes xoolal kii li muy fayee lu ñaaw ku la def lu metti lii loo koy fayee allahuma ixfir li aqi haada ak nitu yàlla bu tol noonu nga xam ne lu mu ñaan yàlla nangu ko mu ni ko jéggalal ma sama mbokk mi pes mooma ba ñu ko laajee lu la dal def ni yàllaa ma doon pes dama wóor ni def naa yàlla lu ko naqari def naa lu bon tey ba tax yàlla di ma yar ba di ma pes waaye ayibalul ki ko door yar loxoom koo kon du mer kon dégg na wax yonent bi sallallahu alayhi bi mu ko doon du mer jamono dox ba nga xam ne nii li yàq àddina bi yëpp mooy mer boo meree léegi nag jumtukaayu yàq bari lu demee ni lii ngeen di tuddee ay vidéo ay ojo mu xew lool ci àddina bi yàq gépp di ci sababoo jëw yaa ngi ci rambaaj yaa ngi ci saaga yaa ngi ci nifaax a ngi ci lépp a ngi ci walxiyaasu billah doomu aadama yi defe ni loolu la ba ku téye sas rajo rek nekk sam néeg tëj ko defe nga ni àddina kenn yëgu la lu la neex wax ku la neex xas ku la neex yàq deram mel ni yàlla def laa gisul te borom bi subhaanahu wa taala mi nga ànd ak nun léeg-léeg nit yëkkati téléphone di wax moroom ma artu ko ni ko li ngay wax ñu ngi nuy diglu amaana am na ñu nuy diglu amaana ñu ngi nuy diglu yaa ngi moytu ku lay diglu fekk na maa yalfisu min xawlin illa ladayhi raqibun atid kii nga war a na moytu kii nga war a na moytu kooku ngay moytu ni mi ngi lay diglu mënuloo dara mënta diglu million yi nit bu ko diglu it mënu koo digluwaat waa ki nga xam nii nag maa yelfisu min qawlin yàlla nee na benn baat du génn lu dul ni kappe naa ko bu yàgg yàlla moom kii moom dalee encan secret wu di lay diglu te yëgoo ko yàlla nag nee na man maa ngi lay diglu yëgal na la ko nga fàtte kooku di daw kii nga fàtte yàlla mi ne la maa ngi lay diglu bàyyi woo ko xel ci li ngay def lu la neex wax lu la neex def bàyyi woo xel yàlla ni yàlla ngi lay diglu yàlla ngi lay diglu yàlla nee na baat boo wax enregistré naa ko te dootul effacé wu kooku mbokk yi ndax monsieur waree su koo bàyyi xel waree su koo bàyyi xel waaye àddina ñëw Sëriñ Tuubaa dafa gàttaloon yàqutik àddina nee na lépp a ngi bàngaasoo ci benn affaire mooy lan xubbu riyaasa wa xubbu dunya nee dara alagul xeet wi ak wu jëkk wu mujj lu dul bëgg àddina bëgg àddina googu sëriñ Touba doon wax nag cëy bu ñëwoon tey bii caméra xewee bii taggante xewee bi jayante xewee kenn ku ne fàtte nga yàlla mi la bindoon kenn ku ne yëkkati nga sa mbagg ca kaw nu defee ne nooy dara sëñ Touba nee nag kañ nga war a yëkkati sa mbagg ñetti étape yii la yàlla binde ban jamono nga ci yëkkati war a yëkkati mbagg inama kunta maniyan xasiroo jamono bi nga nekkee nutfat mani toqantu mani ndax boobu am nga loo war a yëkkatee mbagg mu ni déedéet foofu daa salte ku mu laal nga raxas ko aw inama kunta xaamilan lil asira wala jamono bi nga yoree mbuusum salte mi ci nga war a yëkkatee sa loxo mu ni déedéet boobu it li nga yenu daa baaxul aw inama kunta jiifatan na bi nga nekkee mbedd mu xeeñ ba say bokk ak say soppe génne la ci saal bu rafet bi summi yéere bu rafet bi mbase bi ñu sànni ni da koy taqal lu ne ñu génne ni bu mu ko jege nee bu mu ci fanaan tey nañ ko yóbbu ci wanag wi ñu ko jëmee nañ ko suuli bala nu koo suul nag nanu ko sang ba mu set ba mu xam ne yóbbaale fa dara luy jame nan ko jox itam bu mu bees teq ba mu xam ni mbu mi saltewul nañu ko yeew ba mu dëgër ba mu xam ni fa mu jëm munu faa xeex kooku yàlla nee na ko dinaa la fi fekk alaysa alayna an nataraxaba hada ndax kii waruñu ko fàttali ko yi mais lu waral tëb gi lu waral yëngatu bi lu waral yëkkati mbagg gi ayyuhal ixwatul kiram lu waral bëgg peeñ gi subhanahu wa taala gaa yu baax ye meluñu woon noonu de yuzakkiruni dalik xalifatana algaib mawlana cheikh abdullahi al ahad radiallahu taala anhu wa nafaana bihi ñu génn këram ci belal mbooloo mu fees dellu pénc mi ñiy tëb am ñu gàddu fëtëy am ñu gàddu basañ mu dem ba ca diggi beeñ ba rek mu sóonu mu sóonu ci diggu suuf si boroom jamono la demoon na keroog génn góor a ngi sëgg fi moom di déey ba ni ñokket garab mbubbam bi loxo mbubbam bi ëmb suuf mu ne ñokket mu sotteeku ci kawam mu ni bëreet jëkkante di ko faxas mu ko waay waay jaru ko bis dina ñëw ba ñu may dugal fi barab peel ba may jëkka dal yaa ko fay dóor allahu akbar mais mbokk yi kañ la ñu war a tiitaru kañ ndax doomu aadama yi li leen di alak yéguñu ko ñaari baat benn bi mer lañ ko tudde wax nañ ko léegi benn bi fen lañ ko tudde fen nag mooy alak nit tey di alak àddina di alak àddina bi yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noona bu ngeen fexe woon ba bàyyi fen rek ma mën a wat ni li yàlla tere lépp ba ngeen ko amul benn jëf bu bon ci àddina nit di ko def te fenul jëkk tere nañu riba fen koy jiitu tere wanu sàcc fen koy jiitu tere woon nanu njaaloo fen a koy jiitu moo tax yonent bi tënk lépp ni bàyyi leen fen moom rek mooy jëf joo xam ni dalay wommet ba dugal leen safara kon lu nu war a def mu ni taxoo leen ak dëgg sayiduna abdullahi ibnu masudin radiallahu taala anhu rawa xadisan qaala fihi almustafa inna rajula la yasduq wa yataharra sidqa حتى يكتب عند الله صديقا فإن الصدق يهدي إلى الجنة ورجل يكسب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaye ngi joo xam ne nii dafay jéem dëgg di jéem a wax dëgg ku mu toll ma ngay wax dëgg ko di ko jéem ak li muy metti metti ba yàlla bind ci dossier adresse diw day saddiq la diw day saadiq la ku ko def na kiilu nga ku yàlla bind boobu adresse nommé na la kooku moo kiilu yonent bi sallallahu alayhi wa ni nu bu leen naafeq bu ngeen bëggee seen société baax bu kenn naafeq ñu ni ko luy naafeq mu ni arba'u xisaal arba'u xas la yoo xam ni man na fiihi kaana munaafiqan ñeenti jikkoo ngi yoo xam ne benn boo ci am nafiq nga mu ni ko ban la mu ni ko isa tumina xaan isa tumina xaan nee na buñ la wóoloo rek nga wor buñ la wóoloo nga wor bu la waa ji dénkee nga lekk ko bu la waa ji joxe marse nga fen ca ngir am lu bari neenam na nafiq ñëw na muy benn isa tumina xaan wa isa haddasa kasab bu waxtaanee fen balaa marché be jàll dina fen dana fen marché bi doon dëgg mukk bu bëggee bu am bénéfice luy jar fukk nga ni ñaar fukk laa koy defare fen dugg na yonentu nee na naafeq ngoog benn ñaari jikko wa isa aada xalaf nee na bu digganteeg yow it wor la ca dig ba bu la digee wor la fu mu la ni fala du fa wa isa xaasama fajar boobu siiw nag te bari nee na bu xuloo nag doonub saay-saay saa bu xuloo wax lu amul lu mu jekku rek sànni la ko xuloo yi ni gadd di wax loo xamul dara dara diw def na nangam diw wax na nangam diw sàcc na nangam diw njaaloo na wal xiyaasu billah kenn du ko wax nit baat yu ñaaw yooyu kenn du ko wax nit wax gi ak jëf ji sorewuñu demal ci ñuy jàng fiqa laaj leen ku njaaloo nuñ koy def bu sangewul dañ koy dóor juróom dañ koy jël téeméeri yar bu sangewoo bu fekkee ne jiiñ nga ko nag ñu dóor la juróom fukk kon koy sorewu leen moo tax dañu ni bul ko jige rek nee na saa bu xuloo ñëwee nag waa ji du moytu dara ci xuloo bi nee na kooku mooy alaamatu naafiq ndax gaa yi nag Euh, dajale wunu ñeenti yëpp aha kay man de ñeenti yëpp maa ngi seet juróomeel waaye ñeent yi moom wér na ma ni kenn gañewuma ci wala yàlla subila yal na yàlla wéral ñaan kay yàlla faj nu moo des waaye ñeent yooyu moom mu ngi taxaw tem barab yii nag day faj loolu barab yii day faj rëy nit ñaa ngi nii ñépp tolloo ñëpp bokk nañu mel ñëpp bokk fu ñu taxaw loolu mooy teg de yee ka asnaanil must yan yàlla boole defal tawfiq te jéggal nu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu الله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 mbokki jullit yi li ñuy mottulee sunuy kàddu moo di loolu nu yonent bi doon jàngal mu yar boobu ak yëg gi nuy war a yëg sunu borom bi subhanahu wa ta'ala te bu nu ko yëgee rek mbooleem li nga xam ni moom la ñuy tawat ci sunuy jëmm day set wicc gaa yi noonu la ñu meloon bundee nafaraat dundu ñu jëkk ña nañu meloon bu jëkk mawlana cheikhul xadim radiallahu taala anhu jitaayam bu masaa ñëw day mel ni mag ñépp dañoo faatu nawaakisu xursun nee na dafa mel dañoo muuma ñoom ñépp ñoom ñépp seen laaf yi mel ni dafa tooy mu ni waaw lu waral sëgg gi ñu sëgg lu waral tekkeeral ji lu waral kenn ñimeetu la yëngutu moo na sëñ bakki bu so de nee na walaysa bi walaysa bi sultaanin yuxaafu iqaabuhu moo na nee de du buur de bu ñuy ragal mu tëj la du buur de bu ñuy ragal ñu yóbbu la ci wanag wi déedéet walakinama al izzu nee na tedd nga giy bëx-bëxi ci dënub kii moo roofu ci seen dën yi kenn ñi mu wut wax waaw loolu moom baa duñu tuumaal suñu bopp kon ni rëg-rëg yi danoo gisatul gidd bu nu mën a taxaw taxawloo ko xam ne jëmmam bu toogee nit dootul yëngutu am booba boog dafa amul caméra yu ma bëgg mu jàpp ma bokk ne bu ñëpp toogee ma jaar ci kanamu ñëpp ngir ñu xam ni maa nekkoon nee démb aka tuuti aka tuuti te nga xaar bis ba nga xam ne yow ma yu naa yunaadil mawla ay ahibaa'i ayna asdiqaa'i bis ba yàllay taxaw ne ana sama xarit ya ana sama soppe ya nga ne ñokkeen ñu ne waajaa nga ne le boobu a jara seen seen foofa jara feeñ mbokk yi foofee la feeñ amee njariñ moo na Mawlana Cheikh Abdoulaye Al Ahad de firi woon na ko fi keroog ba muy wax ni bis dina ñëw bu yàlla dajalee bindee fi yépp ba di leen woo ku ne mu di la laaj yonent yi saxaaba yi gaa yu baax yi nee na keroog day am na ko bu jógee bu jógee ñu xam ne jàmbaar jóg na foofee la ñuy waree foofee la ñuy xoole tagg wi foofee la mënoor a nekk foofee la damu war a ame foofee la gaa yi xam ban grade lañu am kon nag dañuy ñëw fii di jàng loolu noo ngi nii ni dégg kenn yëngatuwul kenn taxawul kenn waxul bokk fu nu jublu di diglu kenn lenn lañuy ñuy diglu allahu akbar xam nga baatum allahu akbar lu muy tekki bi nga ko waxee da ngaa weddi pouvoir yépp pouvoir yi àddina bépp weddi nga ko allahu akbar yàlla képp a màgg bañ nga ko ba da ngaa say loxo boole ca wane ni man sax yuruma dara luy niiru ni am naa doole allahu akbar yàlla moomu nag nga wax ak moom di wax ak moom di wax ak moom ba war a tàggoo moom ni ko asalaamu aleykum yéen ñi nekkoon sama ginnaaw yal na jàmm nekk ci yéen yàlla nuyu na leen loolu la julli jariñ moo tax ñu ni julli tanha anil fahsaai wal munkar day dox sa digganteeg lu bon ab jullikat du saay-saay mënu ko ab jullikat du wax lu bon mënu ko ab jullikat mënta def lu bon ndax ju ko ko tere ab julli ab jullit du man loolu bu fekkee ne man nga ko rek debal nga wiri fi waat julli defaraat ko rek bul ko bàyyi defaraat ko dana baax gaa yi dañoo wuute rek ca daraja ya waaye am na kog am na kog julli daf koo yar ba nga xam ni mënta yëkkati loxoom teg ci dara dafa ragal yàlla ba ragal na mbindeefi yàlla yépp Mawlana Cheikh bu Mbacké radiyallahu taala anhu noo fekkee magasin bi dafa bari woon ay sangalañ yaakaar naa Cheikh Mouhamadou Mahfouz dina ma dëggal bu ñu fa duggee di def dara bu la sangalañ yi yéegee dara naan bur yëngu ki la yéeg daa doole ki la yéeg dafa néew doole bul ko laal hasa huwa al iman mbokk yi lii mooy gëm yàlla waaye lu waral rëg-rëg ji di am ci àddina bi léegi ku nekk ni mana yowa bés a ngi ñëw di nga taxaw ni du man yàlla rek la bu nu jógee fii nanuy visité ji armeel yi nanuy visité ji hôpitaux yi na nanuy dem ci biir kaso yi di xool foofa ku xam ni yàlla rek la di nga fa fekk ku ni yàlla rek a fi nekk nga xam ne la la wax loo waajee ni yàlla rek a ci des mën na la koo wax loo bàyyil sa xel kooku waay bàyyil sa xel kooku kooku nga xam ne bi ngay ànd ak sa jot ku ne nga ko tëkkaleel jom jom bariwu fa de joge ci kaw suufu si yàlla si tëmba baxul asamaanam ci tiim la te daanawul ci sa kaw jantam bii tiim la mën a lakk àddina te agsiwul wóor na ni am nañu ko téye téyewu ko sa baay téyewu ko sa sëriñ téyewu ko ba noppi nga nangoo wut moroomum yàlla jom bariwu fa waay yàlla moomu nga xam ni bi nga xëyee sa kafe gi ñu la defaral ba mu neex nga guux ko bi nga wanaasoo nga mujj a xam fu muy jaar am na ku mu yabal de mu téye ko di ko jaarale fi mu war a jaar ba placer ko fi mu ko bëgg a placer bu dellu si waat di xaar mu ñor mu génneel la ko mbokk mi kooku di ko ko tekkalee kenn jom nekku fa mbokk mi nañu xam ne yàlla yàlla waay yàlla mooy yàlla yàlla lu mu wax dina ko def Cheikh Abdou ko firi nee na li mu wax dina ko def te kenn du ko faj moo ni wan kullu nafsin taiqatul mawt bakkan bu fi dund dinga dee nee na man Abdou Lahad di boobaak léegi gisatuma kenn kuy bëgg a dee boroomu sañ-sañ ni du fi dee nee na gëm naa ni la ca toppit noonu la koy defee la ca topp noonu la koy defee nanu jaamu yàlla taragat yàlla foofu la nu bi woo foofu la nu sëriñ bi woo sëriñ bi dafa bëgg ko dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa euh, euh, rabiatu ibnu saadin radiallahu taala anhu daa ñëw fi moom ni ko di ko liggéeyal ndaxte ci ñi ko doon liggéeyal la bokk xam naa liggéeyal na ko yonent bi ba li ba yonent bi bég ni ko sànni dooma ñaan dara mu ni ko murafaqataka fil janna li ma bëgg daal mooy xam naa ni bokkunuy daraja bu dee dem àjjana itam mën naa am fa ngay dem day kawe waaye man dama lay ñaan rek ànd ak yow mu ni ko a'inni ala nafsika nag ma dimbali ci sa bopp may nañu la ko waaye nag ma dimbali ba du buñ la ko duñ la ko xañaat noo koy defee mooy reyal sa bakkan bii sa bakkan bii nag bu ma fi jógee jublu li bépp mooy fexe nga ñàkk lii nga am reyanteel ak moom bokk yi nanu reyanteeg bakkan bakkan da lay jay rek yoway nangam yow murid saadix nga yow sunni yu nga yow nangam nga yow nangam la wallahi xamoo ci dara dara dara nga ci xamul da bëgg lu neex sa bakkan rek waaye xam nga li xew ñun ñëpp xam nañ li ñu fanaane cay li ma fanaane bu ñu ko génne woon fii tey aw yat ngeen may fekke fii ma taxaw aw yat waxuma la saaga mais yet ngeen di yor ni waa waa ji dof bii ndekete li muy li muy wax fii yépp lii la fanaane yàlla baax waay ba mën a nëbbu loolu xamu leen ci tus waaw nag loolu ndax dee su ko jox njukkal ki la làqal loolu doo ko jox njukkal yow itam nag jox ko darajaam ji bul ko bul ko xëccoog moom moo ne ku ci xëccoog yàlla darajaam ba pare bu demee këram cay surga bu wax loolu fu wax ko darajaam surga bu wax lu wokk dara jaam mu xaw laa rey soxna su wax lu wokk dara jaam mu xaw laa fose ba noppi wañu ko nag ni yàlla yow euh, li nga moom moomoo ko waaye yàlla daa xam ne ci kaaf gi nga nekk rek për për ji matu ko moom xam na ni di nga ñëw loo bàkku bàkku yoonam néew ji xam na ni yaa ngi ci biir kaaf gi mënu rëcc te bis dina ñëw mu mënu leen nuus bu leen nee nuus nag nga xam ne yàlla rek la jàpp subhanahu wa taala dajaloo bii dañuy wan loolu incha allah boo enregistré woon nit ñi balaa déwén nun ñëpp am na koo xam ne nii ma ngi koy déggee yowmal xiyaam ah, kon mbokk yi warees naa waaj warees naa waaj quatre-vingts ci kanam tey boo mën na xam tur ñi nekk fii enregistré ko ak seeni photo quatre-vingts ci kanam ku fi jógee nga kosati ni diw jóge na fi quatre-vingts boo sàggantul jumaa ji jeex kon yëf yi ñëw na ba noppi di yëf yi agsi na ba noppi loolu dafa gàtt ak a gaaw ak a jige kon luñ koy waajale nan ko waajal duma sunu bakkan yi bakkan yi liñ nuy déy du dëgg dañ nuy jey rek waaye du dëgg lii dëgg mooy def li yàlla doon def xoolal Mawlana Cheikhul Khadim moo nu dàqoon a jàng Qur'an moo nu dàqoon a julli moo nu dàqoon a woor moo nu dàqoon a azakal moo nu dàqal lu ne moo na moo nu gën a yey ci yàlla de kon nag nañu delluwaat ci yooyu la jëf loolu la nu gaa baax yi foofu lañ nu woon lu ne ñoonu ci man ci mbaax lu ne ñoonu ci man ci mbaax yow nag nga ni téréex rek doo def dara ci baax di jayante rek bu la gaa yi boo doonee wëyu nag moom ñu wali nga wali nit yàlla yi kenn doonatu ci wali yu léegi wali yu rek ñooy wali ki jàdd yoon wi li sëriñ bi wax mu lànk ni ko sëñ bi maa lànk fi nga jaar jaaruma fi ñu woo oh, borom sañ-sañ la de waaja taqoo fa sëriñ bi waxoon ni nañ ma defal sama dëkk bii muy dëkk bi iqamatu salaa wa tilawatul quran wa taalim ndeysaan ñu ne ah kooku da xam naa ne daa gëmul sëñ bi rek ak gëm sëñ bi gëm sëñ bee tax muy def li sëñ bi bëgg sëriñ Touba nee na ku bëgg mbir faaw nga def bëgg-bëggub kooka mënul nekk mukk ci àddina bëgg kenn te lim bëgg bëggoo ko loolu du dëgg barki démb rek maa ngi dégg benn chia bu koy wax yaakaar naa ni ay Aydari la muy tontonteeg benn waa ci Arabie Saoudi ñuy te bëgg saxaaba yeeg bañ saxaaba yi mu ni ko bëgg nga Seydina Omar mu ni ko waaw waaw bëgg nga ndax ki rey Seydina mu nakk nakal mu ne ko ab saxaaba de bëgg mbir bëgg safaan bu mënul am addi daani laa yajtami aani jàngkat yi euh, usul yaa ngi nii jàngeen ko addi daani laa yajtami aani ñaar yu safaanoo mënta ànd ñaar yu safaanoo du ànd mukk ci àddina sëriñ Tuubaa bu ngeen demee ci téeréb di ngeen fa fekk benn bayit taazil ilaha wa anta tusiru hubbahu هذا معال في القيام بدي في القياس بديع لو كان أبك صادقا لأتعته إن المحب لمن يحب مطيع mu ni yow bakkan lii ngay woote ni bëgg nga yàlla mbaa yow murit bi lii ngay woote ni bëgg nga sëriñ bi du dëgg boo ko bëggoon topp ko li mu def di nga ko li mu wax di nga ko def li mu tere di nga ko bàyyi ku bëgg nit dem leen laaj politiciens yi boo demoon ci benn candidat ni ko yow rek laa bëgg bu dee watelu nga lànk bu muti ne doo dem waaye nag foo toll yaa ngi koy bàkk waaye nag doo ko wateel mukk doo wut ku koy wateel mukk boo fekkee ku koy wateel it mën nga koo waxtaanloo ba mu tardé ndax kooku daañu ko boole ci militant yu baax yi jàpp mu ne waaju du ko def de kon Serigne Touba itam militant bi ko bàyyil jumaam yii bàyyil ko alxuraanam jii bàyyil ko nitum ñu baax ñii wallahi doo militan bu baax ca boom kon nanu nekk militant yu baax militant yu baax mooy li sëriñ bi bëggoon ñu bëgg ko li mu bañoon nu bañ ko dañuy bañ li sëriñ bi bañoon lu sëriñ bi bañoon dañ koy bañ ba kere koy fekki te wóor na ma dun ci am yeddeel laa nalqa bi dalika lawmata laimin wa rabbil kaaba dun ci yeddu mukk ci àddina amunu ci tiitaange yal nañu ci yàlla defal tawfiq dëppalonoog la mu bëgg dëppaleen sopp gaa yu baax yépp doonte mënuñoo mel ni ñoom it uhibbu saalihiina walastu minhum la aliya an anaala bihim safaa wa akra'u man bidaatuhu lmaasiyu walaw kunna sawaan fi lbidaa bëgg naa gaa yu baax yi bëgg naa leen doonte melu ma ni ñoom doonte maa yées waaye du teema bëgg leen kon yàlla na yàlla boole defee tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu